gërëm leen ci seen àndaax ñun si rajo Rewmi FM bu baax a baax tey ñu am fi ab gan itam Cheikh Ndiaye moom mooy euh, adjoint bokk na ci adjoint yi nga xam ni ñoom ñoo bokk ca maire commune bu Sicap Liberté moom ñu am mbégte lool bu yaa di ko dalal fii ci émission gox bi euh, monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ni ñu nangulee invitation bi. Euh, jërëjëf Mbemba jërëjëf à toute l' équipe de Rewmi mhm. euh, point com maa ngi leen sant di leen gërëm yi nit ci mhm. invitation bi occasion bi ngeen ma yox mhm. pour ma mën a wax ak euh, li gën a yaatu ak askanu Sicap surtout mais askanu waa Sénégal ci sujet yi nga xamante ne moo ñu interpellé ñun ñëpp alors am na solo laata rek ñuy dugg ci émission bi nu mu gën a yaatoo rek faaw ñu waxtaan ci li nga xam ni gis nañ ni ay fanangi wala rek ñu bàyyi la kàddu gi nga xam ni mën nga ko yëkkati ci journée internationale bi nga xam ni moom moo moom lañ jagleel liggéeykat yi ni ki démb la woon alors euh, ban message tey ngay lancé ñi nga xam ne ñoom ñoo di liggéeykat yi. Euh, voilà merci beaucoup c'est vrai que euh, ñu démb lañ doon fi célébrer le premier mai. Mmh. journée internationale de, du travail. Euh, mu nekk journée boo xamante ne comme euh, l'année dernière ça s'est passé de manière particulière mmh. dû à cette situation particulière bi nga xamante ne moo am ci àdduna bi euh, message bi may lancé nag mooy message wu yërmande mm-hmm. yërmande diggante travailleurs yi ak employeurs yi mm-hmm. message bi may lancé mooy que ñu dem au-delà des conventions mm-hmm. dem ci ay waxtaan yoo xamante ne daf leen di dafay dafay rapproché les travailleurs et les mhm. employeurs mhm. dafay souder les familles que son ces entreprises la mhm. que sont ces institutions là parce que ay familles la ndax fi ngay passé huit heures par jour gën gaa néew nga passé doo ko passé à sa kër wala boo ko passé sa kër it yaa ngi ne la huit heures euh, waxtaan quatre heures ci biir kër gi waaye bureau ba ngay passé huit heures donc ay famille la donc daal sama message euh, ci ren. Mhm. mooy ne les travailleurs. Mhm. et les employeurs. Mhm. bu ñu tëju ci carcan convention yi. les conventions le codes. les lois bu ñu ci tëju. lii la ma loi may lii laay def. lii la ma loi jox lii laay def déedéet nañu dem ci waxtaan de manière consensuelle. ni ñuy waxtaanee ci biir famille yi. pour am ay acquis. pour euh, pour que ñëpp di ci gis seen bopp. Mhm. message boobu daal la am lu may lancé. Mhm. ci premier mai ok wax nga ko gis nañ fi itam ay fan a ngi nii ginnaaw ay yenn xët-xët yi nga xam ni amoon na fi <coughs> ci réewum Sénégal euh, gis nañ ni njiitu réew mi itam euh, amal na benn conseil présidentiel loo xam ne daf ko jagleel li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum xëyub ndaw ñi génne benn somme bu toll ci quatre cent cinquante milliards ne dina ko jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi alors bu njëkk ci li nga xam ne moo jëm présidentielle boobu nga xam ne amal na ko. waa enfin conseil présidentiel bi euh, lu may rafetlu la toujours. mu mm-hmm. fekkee ne njiitu réew mi dafay euh, daje ak askanam. Mm-hmm. donc saa bu njiitu réew mi daje ak askan wi rek. Mm-hmm. dañu war a sant yàlla rafetlu ko. ndax du ñàkk njëriñ jóge fa. Euh, léegi nag conseil présidentiel bi mu def ak sujet bi. dafa nekk loo xamante ne bu ñu dellusee ci ginnaaw tuuti. ñoom dañu doon réfuter mhm. le régime euh, wala boog ñi ko bokk dañu doon réfuter mhm. le problème de l'emploi mu jaaxal ma nag mhm. waaye man damaa jàpp ne dama bokk ci ñi jàpp ne waxtaan mi baax na noonu waaye du foofu moo doon yoon wi fan moo nekkoon yoon bi kay boo gisee yaa ko tudd événement yi fi amoon ci ginnaaw ñëpp analyste yëpp d'accord nañ ci ne c'est la goutte d'eau de trop kooku ñëpp moom d'accord nañ ci. Mm-hmm. ba ñi nga xam ne ñi ngi ci régime bi. Mm-hmm. waa quand la goutte de trop. Mm-hmm. <laughs> lan moo ko jiitu man ma constaté ne. ñëpp d'accord nañ ci ne dafa am rupture de confiance bu am. Mm. diggante peuple sénégalais ak ay élites am. wala boog ay dirigeants am. parce que yaa élites yi ñu ngi ci biir peuple bi tamit. tigi donc rupture de confiance am. de manière sectorielle. nga yëg ba ci institution yi. Mhm. rupture de confiance am diggante le justifiable et l' judiciaire. Mhm. waaye lu mu doon ñàkk. parce que dama jàpp na loolu foofu la. Euh, mbir mi tàmbalee mbir mi tàmbalee. Mhm. les gens sont exaspérés. waaw nit ñi dañu doon étouffer. leen doon xamb waaw. non dañu dañu xam nga kuy étouffé. Mhm. di nga féqatu. Mhm. allah kulli aal. Mhm. nit ñi dañ doon étouffé. la démocratie sénégalaise dafa doon étouffé. parce que dañu tàmm benn benn benn une certaine forme de liberté. boo xamante ne ñun dañ ko doon am ci suñu réew. di wax di dox di nga dem bien entendu Euh, contexte Covid bi tamit joué na ci psychologiquement parce que tëju bi confinement bi ñu doon def. Mhm. Euh, mënuñu ko ci dàq. Mhm. parce que dafa lay euh, ci sa ci sa psychologiquement. Mhm. daf lay atteindre. te da lay téye waaw restriction yooyu nag. boole ceeg yi nga xamante moo fi daan xew. sur le plan ci doxalinu justice. appareil judiciaire. mu jaaxal ma loolu te mënoon naa ñàkk nag. waaw Mbemba waaw man dama jàpp ne lu mënoon ñàkk la quand on suit le président de la république ci discours bi mu defoon 31 décembre mm-hmm. <coughs> waxtaan bi mu amaloon mm-hmm. xamal sénégalais yi ne am na yenn dossier yoo xamante ne mm-hmm. du ko instruire ndax dossier boo xam ne boo ko instruire réew mi tàkk du ko def du ko def moom nga xamante ne mooy jox ndigal ministre de la justice ministre de la justice mooy waxtaan ak procureur ñu ne mooy maître des poursuites. Mhm. kon kay mënoon na bañ a xool mënoon na xool yenn yoon rek <laughs> <laughs> yu gën a nooy. waaw kon loolu mu indi benn euh, du ma ko tuddee frustration ñoom ñu comprendre ko noonu que ni ñàkkub xëy ndaw ñeek chômage bi moom moo téye ndaw ñi ba ñu génn di ñaxtu léegi mu teg. enveloppe bu quatre cent cinquante milliards xanaa kay institution wala agence yi nga xam ne tegoon na leen fa ngir xëyum ndaw yi xanaa ñooñu mun nañu wax ni dañoo lajjoon ah loolu ça c'est un aveu de taille kooku kay d'accord nañ ci agence bi nga xamante ne l'agence phare aujourd'hui mhm. bi nga xamante ne moom mooy euh, moom moo yor euh, financement wu jeunes yi. DER DER. Mhm. dafa taxaw directeur bi euh, délégué du délégué la am. délégué la Pape Amadou Sarr. waaw mhm. ñu koy nuyu au passage. di ko encourager parce que je vois que mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ciy rey boppam. mais moom dafa ñëw assemblée général extraordinaire des maires. waaw yuuxu yi jib ah. ay maire di ko yuuxoo. Mhm. yéen bokk leen ci. ndax ñun bokkuñu ci. maanaam ci yuuxu yi. waaw non ñun du ñu yuuxu kenn ñun yarawuñu noonu. Mhm. mais yuuxu yi bettuñu yuuxu yi bettuñu. yéen bokk moomeel ni quoi yéen maire yi. yuuxu yi bettuñu leen. man man bokk en tout cas. Mhm. man bettu ma. lu tax bettu la. ndax gis nga bi ñu lancé DER. président de la république bi mu ko annoncé. ñu war ko lancé. ñun suñu commune suñu maire ànd ak suñu conseil municipal ànd ak le bureau municipal et le conseil. Mhm. dañu anticiper. ok dañ ne ah, comme que lii am na. Mhm. te xëyu ndaw yi c'est une préoccupation nationale. Mhm. une préoccupation mondiale. maire jëli ay ut ay consultants def appel à candidature ut ay consultants. ñoo xamante dañu xarañ ci wàllu monter projet. jënd matériel informatique bi lañ soxla. jënd jël bureau complet tegal leen ci mairie bi. woo xale yi si kaab ne leen. Mhm. képp koo xamante ne am nga idée de projet. Mhm. ñëwal fii ñu dimbali la nga monté ko. ah naka noonu ñu koy def pendant des mois. Mhm. ba mu yembee consultant yooyu ànd ak maire ñu jël le directeur de cabinet ñu jël dossier yëpp. jébbal ko sous préfet parce que sous préfecture lañ doon recevoir. dossier yi mais fa la lépp taay ba géej. ah bon waaw. Mhm. léegi mu jéggi lu ngeen ci am. daal man de man ba fi may wax ak yow nii mënuma ma la joxoñ ko bon maire sax maa ngi ciy waxtaan moom mu ne ma waa xam naa ci kenn quelque pour être honnête ah. ok nee na ma jot na identifier quelques euh, jeunes. te yéen yéen a ko dem seeti ñoom joxuñu leen ko. déedéet. ok ndax lu waroon am la. waaw parce que en ñun en tout cas anticiper nañu. Mhm. yóbbu nañu encadré nañu xale ba ñu déposer mais dama yaakaar ne institution. bu jaaree ci administration territoriale. Mhm. jébbal jébbal la ay dossier mhm. pour plus de visibilité booy joxe financement yi parce que bi ñuy def euh, lancer DER mhm. mais nga def ko par arrondissement sax woolee maire ah jébbal ngeen ma nangami dossier mhm. financé naa aw autour de temps ci seeni commune joxe def remise symbolique moo lay setal mais moom daf ñoom dañu setalul seen bopp parce que man en tout cas ñun procédure bi ñu engagé woon ci la ñu gëj am information bu officielle bu jóge foofu. kon su ma la déggee mooy commune seen commune. waaw xamu leen ñaata nit. dafa DER financé déedéet ah aw ma ba aw ma information bi. Mhm. à connaissance amul kenn ko am information boobu. Mhm. bokk ci commune Sicap Liberté. est-ce que loolu lu waroon am la ci biir commune bi ñu leen di dem ba leen di financer yéen ñi nga xam ne yéen a bokk moomeel yéen a monter dossier yi jébbal ko commandement territorial bi. te mhm. amu leen ci euh, réponse bi war est-ce que kon DER warul changer approche. waaw moo tax ma ni euh, moo tax ma ni DER war na mën a changer approche war na mën a xool erreur yooyu. Mhm. mu xool nu mu koy corriger moom ñun duñ ko wax procédure bu muy utiliser mais daal. Mhm. retour d' information bi retour bi. Mhm. baaxul. kon DER war na xolaat doxalinam. Mhm. waaw. mais du DER rek moo fi nekk comme ay agence yi nga xam dañuy euh, saytu li nga xam ne moom moo jëm ci xëyub ndaw ñi ay ANPEJ ñu ngi fii euh, yeneen structure ñu ngi fii itam di ko financer ndaw ñi tey est-ce que ñu leen boole benn kuréel ngir sa bu fekkee ni euh, yitte ndaw ñi moom moo leen tax jug ñu def ko benn. oui mais loolu yàgg nañ ko yooxu yàgg nañ ko yàgg nañ ko yooxu kooku kooku ça di di des décennies nit ñaa ngi joytu loolu. Mm-hmm. Euh, les agences yi dul jeex. Mm-hmm. Euh, mais boo xoolee bu DER bu lajee. Mm-hmm. DER DER mooy innovation bu mujjee bi. waaw donc moom mooy topp bi. waaw moom bu lajee. <laughs> ñu nekkul topp. <laughs> <laughs> du ñu wax seen wax nan la ñu war a def waaw du wax seen wax. mais pour bu dire. Uh-huh. bu ñu xoolee. Uh-huh. Euh, en matière de. d'organisation. Mhm. nangami structure jeunes yi am fii ci réewu Sénégal. Uh-huh. ñiy def ay doublons. Mhm. à la limite ils font la même chose. Mhm. copier la. moom daal tu as tu ne comprends pas finalement. ok finalement ñun du ñu comprendre. pour optimiser sax parce que ab réew mu réew dañuy wax réew mu pauvre lañ. te du ñu adopter procédure yay yaxanal. alalu réew mi c'est extraordinaire. man fii rek laa ko gis structure des jeunes mhm. waroon nañu mën a ñoom ñëpp mhm. dépendre ci mhm. ministère de la jeunesse nekk ay direction balaa muy nekk ay agence fii agence fële euh, délégation fii délégation fële mais est-ce que est-ce que est-ce que DER ëpp ëpp ëppul alal ministère am sax budget ministère de la jeunesse jàppuma ko <laughs> day am problème coordination problème coordination problème waaw bu bu parce que kii dina ne maaf projet yi kii waaw après léegi mu jënteel ga kenn xamul nu parce bi dama yaakaar ne moom moo war a mën a nekk au sommet coiffé ñëpp coiffé ñëpp mhm. ñooñu di travailler autour de lui bien entendu ak ay mhm. mission ak ay objectif ay mission ak ay objectif ñu ci ñu ñu ciy liggéey mhm. mais bu ANPEJ di capter ay financement DER di joxe ay financement euh, euh, yeneen yeneen yi di joxe ay financement mais fa lañ jëm doy na waar mais ñu ñu ñu bëri dañuy wax entrepreneuriat warul rapid warul gaaw ah man day man mii di entreprendre mhm. depuis que je suis très jeune mhm. ah, ne bu gaawee day ah xëy na xam nga bu ñuy wax rapide mhm. ñoom ñoo la ko mën a expliquer nu muy def ba rapide waaye man day dëgg dëgg euh, Mbemba xaw ma entrepreneuriat bu rapide waaw nan la war a ñëwee tey buñ ko bu buñ ci duggee ni entrepreneuriat la ñuy sóobu. Mhm. est-ce que tey da nga koy jox rek mu daal di koy utiliser yeneen ci yeneen fin. Mhm. est-ce que warul am ay ay pas des préalables yi nga xam ni war nañ ko mën a teg bu fekkee entrepreneuriat lañ wax. waa xam nga loolu loo loo loolu déjà pour nga mën koo pour nga mën ko pour nga mën ci taxaw. Mhm. organisation la laaj. parce que Cheikh Ndiaye mi ñëw ut ci financement. jox la benn projet boo xamante ni c'est dans la menuiserie. defar ko ba mu rafet. Mhm. ñëw jox la ko xamoo capacité wu Cheikh Ndiaye. nga financé ko parce que projet bi rafet na dem na ci benn grand menuisier mu briefé ko. Mhm. mu ñëw rek commencé. Mhm. di ratatati bindal la nga recevoir ko mu defal la benn débrief benn briefing bu bu bu rafet. nga financé ko du def menuiserie. wala bu defee menuiserie day yàq. ak yeneen ak yeneen ak yeneen c'est vrai que benn côté bi. Mhm. Euh, l'État euh, mi ngi def ay efforts ci formation. juste kooku il faut le reconnaître. 3FPT mhm. euh, yeeg mais mhm. mais dafa am benn donne bu ñu jëlul en considération mooy lan mooy ñi ngay wax pour ñu dem former wu. dañu déscolariser wu bu yàgg. tàmbali utum dërëm. dërëm yooyu ñuy ut. mooy faj seeni soxla. ndey faju ko bàyyi faju ko. ci la ñuy lekk ci lañuy naan ci la ñuy solu mhm. bu ñu waree bàyyi utum dërëm boobu mhm. ñu waree bàyyi utum dërëm boobu mhm. dem di jàngi métier pendant ce temps la fan la ñuy jëlee lu ñu lekk lu ñu naan lu ñu solo man dama bokk ci ñu jàpp ne euh, budget bi ñu jox DER pour mu financer ndaw ñooñu ñu woo 3FPT dañ leen waroon di may ay bourse bourse yooyu mooy nekk benn benn pécule bu ñu leen di jox mensuellement. Mhm. pour ñu nu mu néew néew néew néew mu am lii paas la. Mhm. lii ndekki la lii añ la. au moins mu am fu mu leen féete. Mhm. ñu def objectif sur deux ans sur trois ans. ñu ne dañuy képp koo xamante ne yaa ngi def formation professionnelle à travers filière trois fpt bi. dinañ la jox. vingt cinq mille waa xam trente mille wala cinquante mille mu nekk sa paas sa ndikik sa yooyu mhm. boo amee sa attestation boo fekkee par exemple nga def ay critères d'excellence mhm. ah les cinq premiers de chaque kii dañ leen yokkal ainsi de suite ainsi motivation mhm. parce que ils sont démotivés moom laa lay wax au début de il y a une rupture de confiance dañu okay. am démotivation totale mmh. ils sont dans le désarroi ils ne savent plus où donner de la tête kon yow mi leen yilif yow mi leen di yow yaa leen di récupérer mhm. tegaat leen ci yoon mhm. bu fekkee ne yow gis nga yoon wi mhm. nga tegaat leen ci yoon bu jub bu bu taxaw ñu mën a dellu si waat te loolu waruñu mën a lésiner si on ne lésine pas pour donner quatre cent cinquante milliards sur trois ans on devrait pouvoir ci comme que ndegam ndaw yi ñoo ko moom war nañ cee mën a jël à la limite ndegam nangami milliards vingt cinq wala cinquante. Mhm. boo xamante ne ay bourses kese lay nekk. Mhm. on va former comme mooy motivation yi ngay wax léegi des milliers de jeunes on va les former ñu gën ak ay formation diplômante. Mhm. et ku ci am sa formation diplômante. dañu lay encadrer en même temps à l' entrepreneuriat. ngay ñiy génn en groupe parce que dañuy bokk classe. Mhm. ñiy génn ñi ñi ñi am ay ay ay projet de groupe. Mhm. mais aujourd'hui ce sont des projets indi maa ngi dégg euh, individuel maa ngi dégg délégué général. Mhm. moom moom moom quatre cent cinquante milliards sur trois ans yi jeexal na ko. nee na il cinq cent mille projets sur sa table. pour un pour pour un coût de six cent cinquante milliards. kon kay nañ noppalu ko. ah ba kon wax dootu ko jarati. mu war ko saafara kon tey ñu ngi dalal tey ci ah. émission gox bi ki nga xam ni moom moo di Cheikh Ndiaye nekk adjoint au maire bu commune bu Sicap euh, Liberté. Mhm. alors mu nekk lu am solo tey waxtaan bi euh, monsieur Ndiaye tey commune bi seen commune fan la toll ci euh, wàllum infrastructure. tey ci commune bi ndax dalaloon naa la fi. ñàkkul ni tey. Mhm. am na ay évolution yi ci am. walhamdulilah rabil alamin damay sant yàlla euh, diggante bi nga ma fi dalalee ak léegi. Mhm. Euh, les choses ont avancé. ni ñu ko yaakaaree woon. Mhm. noonu la demee. Mhm. doonte xaw na yéex sax. ndax euh, lépp li nga xamante ne mooy rond yu nekkoon diggante liberté un. ba liberté trois. Euh, yenn yi toog yoo xamante ne pendant trente ans kenn laalu leen. Mhm. yenn yi au la ok kenn mosu cee def dara. Mhm. Euh, ñu ngi leen di réhabilité. am na ci yoo xam ne pare na mhm. éclairage public bi rekk des. commune bee ko defar commune bee ko defar. ok euh, sur les fonds. yi jóge ci FECL bi. yi jóge ci PACASEN bi. moo ko financé. ñu ngi reprendre. tout ce qui est terrain de football. yi nga xamante ne ñi ngi ci commune bi. Mhm. ñu ngi koy defaraat ñu ngi koy réhabilité. Euh, xaw na difficile tuuti parce que benn instant les travaux arrêtés. Mhm. Euh, à cause de certaines procédures assez lourdes. Mhm. ak contexte bi ñu nekk. mais am naa yaakaar ne moom tamit semaine prochaine dañ ko reprendre en tout cas les chantiers moom tàmbali na. Euh, bi nekk au niveau de liberté 6 extension ASECNA. boobu moom pare na. ba livré nañ ko donc yi nekk liberté 4 liberté 5 yooyu ak yeneen initiative yoo xamante ne am na foofu. Mhm. entre population mairie ak euh, yenn institution yi. Mhm. moom daal ça alhamdulilah côté infrastructure ça bouge. ça bouge mhm. ça bouge beaucoup. Euh, bien entendu y a le projet du centre commercial. bi nga xamante ne war nañ. boobu dinañ ci ñëw waaw <laughs> incha allah. ok alors ñu wax itam ci. wàllum pàcc parce que pàcc itam lu am solo la parce que mhm. commune boobu itam mhm. amoon na ay jumtuwaay ci wàllum santé mhm. ndax tey ba ngeen ñëwee am na lu ngeen ci yokk wala am na loo xam ne fekkoon ngeen ko mu bëgg a màgget ngeen daal di koy réhabilité waat tey fan ngeen ci toll am na ay jéego waaw am na ay jéego am na ay jéego yu wóor euh, ndax boo xoolee ñun ay poste de santé lañ fi fekkoon tey jii may wax ak yow yooyu poste de santé yooyu ak euh, volet RSE bu entreprise matière. Mhm. mooy ñi euh, nekk di tabax pont yi ñuy defar pont yi. Mhm. Ah, demoon nañ fa ba def seen demande. Mhm. ñu reyaab bi ñu wax li ñu soxla ñoom. entreprise boobu jox leen ko. mooy poste de santé bu liberté 6. ak poste de santé bu liberté 2. côté boobu fa lillahi alhamdu. waaye nag équipe bi nga xamante ne moo fi nekk. yàlla dimbali na ko ba. ñu am centre de santé. ok de santé bu mag. Mhm. centre de santé boo xam ne référence la aujourd'hui au Sénégal. Mhm. Euh, mi ngi Liberté 6 extension muy centre de santé modulaire Mamadou Diop. Mhm. Euh, nga xamante ne tey jii boo fa soxlaa spécialité. parce que bu njëkk ba. effectivement maire bi mu ñëwee constaté ne waa Sicap Gaspard la ñuy fajoo. ak SAMU municipal. à part de santé yooyu ñu amoon. muy dox di wax ba am terrain. am terrain outil financement ànd koog ville de Dakar. Mhm. ñëw ñu financé ko indil euh, poste euh, centre de santé. Mhm. Euh, modulaire Mamadou Diop. Mhm. tey jii muy capté lu bëri ci wàllu. feebar. traitement wu yi. mu ci capté lu bëri ñu leen di faj ñu dellu si à proximité man à la limite. man dematuma fenn man maak njaboot yëpp foofu la ñuy fajoo. depuis depuis que mu fonctionnel mhm. maximum njaboot yëpp foofu la ñuy fajoo xanaa ñoom lu ñu mën ta faj ñu dem ci hôpital mhm. mais ñun foofu la ñuy dem automatiquement mhm. donc pour vous dire que kon offre de santé commune Sicap quand maire maire bi yokk na ko et de manière très très très significative euh, mooy centre de santé boobu mais souvent travailleurs yi dañuy ŋàññi naam doxalin bi subvention yi duñ koy di a jot ak yenn jumtuwaay ci biir euh, centre yi ndax euh, yéen prévoir ngeen yooyu noonu yëpp wala am na budget bi nga xam ne jagleel ngeen leen ko pour ñi nga xam ne moom moo jëm ci wàllum paj meeg boo ko defee mu bañ a sooxe. waaw en tout cas de euh, charge bi gën a diis. Mhm. ci commune Sicap Liberté. Mhm. tey centre de santé boobu la. ok mooy poste bi poste budgétaire bi gën a diis parce que da ngay jël personnel. Mhm. da ngay jël électricité. da jël eau. da jël ay appui. ay subvention yoo fay dugal. Mhm. donc mooy poste bi gën a diis. ok c' est da nga koy tas ci budget bi mais boo ko reboucler. Mhm. moom li muy absorbé. Mhm. amul beneen poste bu koy absorbé. ok ba bis ni tey. dégguma tamit mouvement d'humeur bu jóge ci centre de santé ba. pour wax ne seen salaire dafa tardé. wala seen i avantage dañ ko dafa tardé. wala seen traitement ci lenn loo xamante ne warloon nañ ko diggante. stabilité moo fa am alhamdulilah ñi ngi koy sant yàlla stabilité moo fa am. Mhm. stabilité moo fa am may au passage may sant di gërëm le président. Mhm. sortant le président Dieye. Mhm. remercier le président actuel le président Traoré. ak équipe yi nga xamante ne ñoom la ñu àndal di liggéeyal. waaye tamit le personnel médical. waaw personnel médical bi fa nekk. vraiment ñu bëgg li ñuy def la. ñu bëgg li ñuy def la ñu leen di encourager bu baax a baax a baax a baax ñu tegee seen tànk foofu. Mhm. ndax bu ñu demee ba am bés ku ku ñëw ma koy expliquer centre de santé mu ne ma non foofu clinique la. am na clinique bu mu dendal. Mhm. xanaa ci ginnaaw clinique bi la mën na ko déedéet fi nga jàpp ne. clinique bi la bañ koy méngalee clinique waaw waaw waaw. kon donc ce qui veut dire que ay avantages am na. ah waaw avantage euh, non c'est c'est bien fait. Mm -hmm. c'est bien organisé mais c'est très accessible. ok loolu laay wax ne euh, euh, centre de santé boobu rek ah su fekkee am na feneen dina ma jaaxal ngay am chambre climatisée. Mhm. toilette intérieure. Mhm. avec téléviseur. Mhm. à dix mille francs par jour. <laughs> xam nga moo yey. kon donc euh, évolution am na. Ah, mais est-ce itam du ngeen xalaat yeneen tabax puisque commune itam day màgg. waaw waaw dinañ mën nañ ko xalaat waaye nag je vais vous dire si chose. Sicap amul foncier. foncier moom daanaka jeex na. jeex na seen waaw Sicap moom amul foncier ñun fekk nu fi foncier boo xamante ne war dañ koy jël ak a tabax. la fa desoon as néew sax Sicap SA moo ko moom. la yaakaaroon ne mën nañ cee teg loxo ginnaaw bañ ci doxee ay ati at ati at. Mhm. maire jaar fu ne jaar ci président yi. Mhm. jaar ci ministre de finance yi jaar ci ministre de budgets yi. Mhm. jaar ci directeur des domaines yi fu mu ci jaar ñu ne ko waaw waaye mu jigi France dali xëddem. bu ñu déggee dara tox nañ Sicap jël na la mu moom lépp. il faut que mairie Sicap ñoo xam ne. Sicap amul foncier à part terrain de football yi damay ragal bés sax ñu ñëw nañu Sicap moom moom terrain de football yi waaw nag dañ di bàyyi gone yi rek <laughs> ñoom ils savent te défendre uh-huh. waaw mais daal uh-huh. foncier boo fa yaakaaroon ne uh-huh. mairie bi war na ko mën a utiliser pour ay infrastructure wala pour leneen euh, boo tegee loxo ñu ne la moomuloo ko waaw ok seen émission gox bi di dalal tey Cheikh Ndiaye mooy euh, bokk na ci adjoint yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune bu Sicap euh, Liberté alors euh, li gën a am solo ponk yi am na benn euh, pàcc bu am solo ci li nga xam ne moo jëm ci émission bi daañu ko waxtaanee. Mhm. Euh, bu ngeen fàttalikoo rek fan yi ñu bari ñu ci doon addu ci mhm. wàllu wi ni mel. donc bañ doon wax sax li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum centre commercial bi nga xam ni waa bëgg nañ ko tabax wala marché commerçant yi nga xam ne bëgg nañ leen jëlee foofu comme moom mi ngi fi. Mhm. danañu expliquer. ana mbir yi naka la demee ak tey fu mu toll. waaw jërëjëf euh, c'est euh, c'est une question qui nous interpelle euh, boo xam ne tout le temps temps yi moom. Mhm. Sicap moom ku fa nekk yow lañ dinañ la ci interpeller. waaw waaw. <laughs> moo lay wan ne rek askan wi dund gi gox bi ñor na leen. ñu ngi leen di bàyyi xel ñu ngi bàyyi xel bu mhm. baax a baax a baax. loolu nag. Mhm. centre commercial boobu peut-être que dama ci duggandi dama koy brosser parce que suma collègue premier adjoint au maire. monsieur le maire Bira Cheikh Birahim Gaye moom mooy piloté dossier boobu. ok xëy na du ma wax tout dans les détails mm-hmm. mais li nga xamante ne man xam naa ko ci mm-hmm. euh, mu nekk lu leer mm-hmm. mooy centre commercial boobu déjà dafa nekk centre commercial boo xamante ni euh, naka laa ko mën a tuddee dafa mës ñun dañ ko mës fekk ci lëj-lëj maanaam bëri na coow non lëj-lëj xam nga lëj-lëj <laughs> maanaam ay jaay nañ sama cantine maa moom bi di naan moomuma ko. Mhm. di nangam nangam. da kenn xamatul ku moom. ku moom xamuñu ku moom bii xamuñu ku moom bële. y a de dossiers au tribunal. Mhm. yéen ñii di ay journalistes. Mhm. Euh, da ngeen di dem tribunal rek ngeen laajte ces histoires sur le centre commercial. ba ca topp mooy infrastructure bi ku waxul dëgg wax fen infrastructure bi baaxul. baaxul waxuma ko. waaye ci suñu premier mandat la ñu commettre. cabinet d'expertise. Mhm. nekk lu ñu bëgg nga saytu ñu bâtiment bi. ok mu defal ñu rapport xamal ñu ne bâtiment bi danger la pour ñi fi ne danger la pour population bi. Mhm. malgré ñu naxante ñu def contre expertise. Mhm. boobu gën a yéesati donc ci la ay démarches di waxtaan ak commerçant yi. mais boobu amul. benn perspective parce que mënu ko tabax. mënu ko toj mënu ko tabax lan la mënoon def tëj ko. Mhm. bref y' a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Euh, waxtaan am na juboo am na ñàkk juboo am na bon léeg-léeg nga waxtaan ak benn mbooloo ba mhm. yaakaar ne foofu la ñu ne la déedéet mbooloo mi dootul bii beneen mbooloo la mhm. ñi d'accorduñu xam nga donc nga koy gérer mais ñu yegg foo xamante ne à un boo xam on a une offre buy permettre no seulement nga defar infrastructure bi mais nga identifier les vrais propriétaires mhm. tegaat leen ci ay normes yu baax loolu nekk préoccupation mhm. conseil municipal monsieur le maire di ko doxal mhm. bu ba fii nag Euh, le même promoteur bi nekk bi defar marché bu Gueule Tapée mhm. moom mooy defar euh, moom moo moom moom mooy defar euh, bu Liberté 6 extension moo gagné marché bi moo gagné marché bi c'est une offre spontanée en mhm. réalité mhm. mu ñëw di ko defar gis nañu ñun ne ñële ñoo ñu jiitu donc kon lu mel noonu infrastructure moderne bu mel noonu duñ ko xañ waa Sicap d'autant plus que sur les détails moi ce que j'en sais mooy ne que képp ku fa amoon cantine képp ku doon propriétaire dañ lay joxaat cantine même bu fekkee ne y a euh, une somme booy versée mais qui est dérisoire mhm. mu des la problème des occupants xam nga nag marché loolooy souvent le problème mhm. y a des propriétaires y a occupants si. bi bu loué mhm. moom bu ko joxaatee cantine occupant bi fu muy dem mooy problème bi foofu la euh, ci sama foofu daal jàpp naa ne foofu moo gën a euh, sooxee mais man bu ma doon ñoom Euh, dañuy def seen collectif waxtaan ak autorités yi. Mhm. waxtaan bi mi ngi door ba tey wala sooxee na. Euh, xam naa ne daal euh, mi ngi mi ngi dox. Mhm. mi ngi dox mais xam naa ne sooxe na. am na foo xamante ne y a des blocages. Mhm. mais jeune ne désespère pas am naa yaakaar ne daal dinañu jël ñëpp parti yëpp dinañ jël plus de hauteur. waxtaan dans le sens de la construction. da lay defar. man loolu lay appel boobu lay lancé. ñoom bañ leen fi bañ bañ fi demee woon couvrir foofu parce que ay fan ñu ngi woon fa itam. Mhm. ñoom dañu ne. Mhm. Euh, marché bi euh, nekkagul période boo xam ne itam ñoom mën nañ fa jógee ndax lépp foofu amul problème. waaw amul problème euh, ñoom mën nañ ko wax. Mhm. waaye ki ñu dénk day jël ay responsabilités xam nga xam nga maire. junj na ko nee na bu ñu la demee ngay dénk am na yenn yoo xam ne doo ko mën a nangu. doo ko nangu xam nga le maire. Mhm. bu jógee tey jii bu fa dara nekkul. Mhm. amul benn acte boo xamante ne mairie maire Sicap Liberté ak équipe bi mu àndal di liggéey def nañ ko te l' autorité administrative ci son blanc-seing approuvé wu ko. kon ça dire que kii def contrôle de légalité. Mhm. des actions du maire. jugul di defal di defal boppam. déedéet. kii dama ne ki nga xamante ni moo chargé wu contrôle de légalité. moom ak hiérarchie lépp loo xamante ne acte buñ ci posé ñoom approuvé nañ ko. ok kon xanaa ñooñu yëpp on peut pas me dire que boobu yëpp. balaam ñoom ñëpp ñoom dañu gis ne marché bi yaa rien ñu waaye ñu ne dañ koy toj loolu dina ma jaaxal. Mm. moi bu voudrais qu'on revienne à de meilleurs sentiments. Mm-hmm. que ñu raisonnable. ñun ñëpp. Mm-hmm. parce que maire bu maire bu ne ci gox waaw mm-hmm. góor rek la bëgg. bu sañoon amul benn maire bu nekk fii Sénégal. Mm-hmm. boo sañoon di réeroo ak askan wa nga xamante ne yow yaa leen jiite. loolu lu wër la. donc askan wi itam. il faut ñu xam ne. les maires dañuy def ay efforts incommensurables. avec le peu de moyens pour jéem a satisfaire seeni bëgg-bëgg. dafa metti nag dafa metti lool. Mm-hmm. et c'est un appel que je lance encore fois. Mm-hmm. il faut que ñu def yërmande mën de suñu diggante mm-hmm. pas que ñuy doxalee système bu njëkk ba. puusal ma toog defu fi dara nangam nangam. il faut que ñuy encourager waxu politique politicienne. waaw il faut que ñuy enco non loolu dafa war a jeex nag. politique politicienne moom def ay eh, am naa yaakaar ne sax ñu ngi ci tournant boobu daal. ok loolu moom dafay jeex senegal mais des souve nit yi bu ñu génnee. ñu tabax. dugg bi yaa ngi ko doon junj foofu xëy na foofu dal xel mun naa am xel bu rafet mun na fa am <laughs> mais ñoom xëy na seen njort la seen crainte la moo tax ñu naan bu euh, buñ fi du buñ fi génnee duggaat bi du yomb ñoom loolu la ñuy calculer mais est-ce que joxe ngeen gaz assurance yu mat sëkk que ni ñoom ñu mën a am loolu kon ni euh, bu ngeen fa bu ngeen leen fa jëlee tabax dinañ dellusiwaat te des fois bu ngeen nee durée bi euh, tabax bi bu defee fukki weer wala fukki weer ak ñeent des fois di da koy romb app bi da koy romb. Mhm. est-ce que yooyu noonu yëpp bàyyi ngeen leen bàyyi ngeen ci xel yéen mairie bi. pas plus tard que hier. Mhm. maa ngi le maire. ñu ngi ciy waxtaan. Mhm. durée bi. ah il faut que ku ñu jël assurance yëpp. pour que le promoteur respect ses engagements. Ah, waaw waaw souvent mooy indi xët-xët yi. mu ne ma effectivement. il faut que mu respecte ay engagement am di ko ci ñaaxaat mhm. di ko ci interpeller mhm. di bañ na ko ba di xool li muy def gël tàppe mhm. pour xool ndax ma ngay avancé ou pas et il des vidéos comme quoi que ñu ngi ciy avancé bu baax donc loolu c'est très important il faut que te gis nga loolu sax ma waxuma la sax waxu marché rek kooku Sénégal il faut que ñu jàng di respecter ay délais mais ci contrat bi y a des yoo xamante retard yi bi amee. Mhm. Euh, moom dina am foo xamante ne dañ ko dina am ay pénalité mais gënaluñu. Mhm. parce que ñay toog du ñu liggéey manque à gagner boobu dafa bari. te yor ci war yor seen famille nag. Mhm. war a yor seen njaboot. waaw calcul la ah non il faut que nit ñi sóor leen bu baax a baax a baax a baax foog ñu bàyyi leen xel. ay damaa ragal ne sax loolu moo waral sax coow li. Ah. parce effectivement xam nga ki nga xamante ne. amuloo feneen foo dundale sa njaboot. fi nga koy jëlee ñun la dañ koy toj. dootoo ko am pendant un an. yow yaa ngi xool yow looy dundale sa njaboot pendant un an. Mhm. il faut que tamit nous les autorités qu'on puisse comprendre la position et l'état d'esprit des gens. Mhm. rassurer leen tegal leen loo xamante ne dinañ ko mën a dégg ñoom it ñu raisonnable. xam na peut-être fi nga nekkoon di fa am ñaar téeméer bés bu nekk. Mhm. bu ñuy tabax di ko defaraat di ko améliorer. xëy na dootoo mën a am kooku kooku mënatu la jox ñaar ñaar téeméer boobu xëy na mën a juróom fukk la lay mën a jox. wala téeméer la lay mën a jox. mu jàpp ci loolu. mu jàpp ci loolu. Mhm. waaye mu xam ne bu dellusee fu mu doon amee ñaar téeméer. Mhm. ñeenti téeméer dafay am. ndax infrastructure bi ñoŋ na. Mhm. faut que ñu mën di projeté wu. waaw loolu daal il faut que nit ñi di ci bàyyi ngi ci biir. waaw parce que xam nga foo xamante ne euh, rez de kese la. nga ñoo def ko R plus 6. moderne escalator avec toutes les commodités. yi fa war a mën a nekk. kooku sa à dire c'est plus attrayant. évolution la évolution bu mag la te loolu la ñuy rêvé pour infrastructure yi moderne. loolu la ñu bëgg donc kon yow. Mhm. Euh, service bi nga fa daan def. Mhm. valeur ajoutée bi dafa yokku. ndax infrastructure bu bees boobu ñu lay indil. Mhm. waaw kooku daf ci am solo. ok am na solo alors léegi euh, beneen coow loo xam ne bon du ma ko tuddee coow mais Stade Demba Diop. Euh, dalal naa fi kenn ci seen ndaw sikap yi. Cheikh Ndiaye moom nee na stade bi le fait ko ñu jël ko jox ko fédération pour mu tabax ko. Mhm. te yéen SICAP ngeen mënoon def loolu. Mhm. est-ce que tey xalaatoo leen ni yoon tey amoon terrain bi walla ñu joxal ko mairie bi pour mu gérer ko gënul woon. oui bien entendu. Euh, je vous chose. Mm -hmm. et ça ça euh, ans environ. Mhm. wala wala à peine cinq ans le maire a a a, a eu des partenaires qui étaient prêts à investir toj stade bi tabaxaat ko def ko stade moderne. ah bon oui mais le ministère nangu ko jox stade bi ministère moom moom. moom laaj na bind na. Mhm. ministère joxu ko lu mu ci mën. kon su ma leen déggee da ngeen di bàyyi noonu. Euh, dañuy bàyyi noonu mais cest en fait il faut ñu wax ma lan laa ci mën. Mhm. en tant qu'institution par contre population bi jug sañ na jug réclamer et d'ailleurs y a un collectif qui bu taxawoon. parce que loolu si loolu laa doon ñëw parce que am na collectif buy waajal euh, janoo ak taskatu xabaar yi bëgg a wax ci situation. en tout cas bi collectif buy waajal xaw ma en tout cas je sais que am na benn collectif bu existé woon. te ay mag yi Sicap. ñu sanc Sicap. Mhm. ñoo ko taxawaloon. Mhm. ba rencontré woon nañ sax fédération. Mhm. par rapport à aux questions liées euh, Euh, xaw ma nag fan lañ ci mujjee. Mhm. mais bu fekkee dafa am beneen collectif war nañu mën a daje ak collectif boobu. Mhm. mu gën a yaatu. nekk benn say mu nekk benn say. Mhm. waaw kooku dina ci am solo lool. parce que nag am na combat yoo xamante ne population moo koy mëne. population moo koy mëne mais institution bi fa mu waroon jaar jaar na fa. la mu waroon def def na ko. mais stade bi atula woon si commune Sicap. ah amee bien sûr atu bu mag. xam nga stade bi tey jii nii buñ ko tojaat buñ ko tojoon. defaraat les emplois. bi mm-hmm. muy créer ci biir commune bi. Mm-hmm. le le volet mm-hmm. bi muy bi muy ci biir commune bi ku xam si Sicap xam ne Sicap. Euh, ñu bari dañ naan Sicap bu démb. waaw Sicap bu démb xam nga nag euh, euh, <laughs> waaw Sicap bu démb dañ koy wax. ils sont mais je di toujours Sicap bu démb esprit la. Sicap bu démb. esprit la ba pare. comportement la. Mhm. doxalin la. si kaa bu démb. Mhm. loolu la ba pare. moo tax boo déggee ñu naan booy sikap. Mhm. waaw c'est parce que booy sikap boo ko daan wax day day génn sikap. am na lu muy reflété waaw am na lu muy wane. li mu bàyyi. déedéet mais li muy li muy li muy dégagé la. ok ça c'est un esprit. boo xamante ni c'est vrai. Euh, gaañ nañ ko. muy benn parce que dañ fa gis comportement yu bees yu ñu gis. dañ fa gis ay doxalin yu ñu xamul woon. Mhm. mais loolu yëpp contexte évolution adduna bi moo ko indi. ok il faut que nag ñun ñooy xool naka la ñuy pallier à ça. Mhm. bi ci topp Sicap dem moo naan Sicap moo naan da nga daan am chaque jour boo yeewoo ñu balal la sa buntu kër. booru trottoir y avait un service dédié au nettoyage. y avait des jardins yi jardins dañu amoon ay ay ay espace de jeu yoo xamante ne c'est destiné aux enfants. ndax yéen a ngi koy dundalaat. waaw bon moom laa lay wax les ronds-points. Mhm. les places. Mhm. les espaces ñu ngi koy réhabiliter. Mhm. ñu ngi réhabiliter les espaces de foot. donc c' est un processus nag. lu ci nekk da nga cay def la nga ca mat at mi. la nga mënul nga xaar at ma ca topp nga def ainsi de suite. fa nga yem. ci liggéey. bu keneen ñëwee. yeggali foofu eggali foofu. waaw noonu la ñuy tabaxee gox noonu la ñuy tabaxee réew. kon yéen pare ngeen pour accompagner lépp loo xam ne initiative la ci lu jëm ci coowal Demba Diop bi. bon enfin coowal coow sax amagul dama ne bu dul Demba Diop sax. Mhm. on est disposé man boog Cheikh Ndiaye. Mhm. Euh, je suis disposé. ok pare naa pour bépp xeex bu ñuy mëne. Mhm. bu jëm ci foofu ma bokk ca. ok. c'est aussi simple que ça. Euh, ñu wax tey ci li nga xam ni moom moo jëm ci euh, élection locale yi mais. dafa am benn point bi ma bëgg a wax euh, laata ñuy dem ci élection locale yi report yi situation adjoint maire yi yéen tey lan mooy seen situation li nga xam ni moom moo jëm ci adjoint maire yi. précarité totale comme en mille précarité totale. lu tax loolu. <laughs> même ba. en tant qu'adjoint maire. dañ lay jox yow dañ la fal. même condition que maire bi. tigi ni ñuy falee maire. Mhm. ak ni ñuy falee adjoint maire. Mhm. amul benn différence. liste ngeen di dem. Mhm. liste ba gagné. wala xamul gagné en tout cas vous êtes conseil. ok ñëw de conseil ñu def passer au vote. ñu fal la. ñu fal maire fal ses adjoints. dans les mêmes conditions. ñu installer leen dans les mêmes conditions. Mm-hmm. mais gis nga jour bi ñu leen installé. Mm-hmm. jour bi ñu leen installé euh, jour boobu ngeen di jur boobu lañ leen di xaajale. lu tax lu tax loolu. mais c'est le code des collectivités territoriales moo joxul considération adjoint maire. am ngeen kuréel yi nga xam ne mun nañ taxaw ngir mun a. kuréel yooyu. Mhm. muy UAL muy euh, AMS. Mhm. jëluñu benn préoccupation concernant les adjoints au maire les maires lañu ñu toppatoo xam naa xam nga ñoom ñëpp ay maire lañu. Mhm. <laughs> wala ay président conseil départemental. si si waaw seen yoon seen yoon ci adjoint maire. donc il faut soppi doxalin. oui te adjoint maire yi ñu ngi organiser wu nag. ah bon ah oui au moment où je vous parle. loolu yaa ngi ma ko jox comme information. ko jox comme information. au moment où il y le groupe national qui s'est constitué euh, et il des groupes régionaux. Mm-hmm. waaw il y a des groupes régionaux. lu ngeen di waajal lu ngeen nar. parce que depuis des années ñi ngi fexe nu ñu booloowee pour créer benn dynamique pour que les les, les conditions des adjoints au maire soient mm-hmm. on a tenu une réunion à Mbour on a tenu une réunion à Kaolack on a tenu une réunion ici à Dakar au CICES. Mm-hmm. fi nii nag ñu ngi koy organiser waat. Mhm. le cinq bi li ëpp ci ñoom. Mhm. dañu organiser wu en poule zone centre zone nord zone sud pour que de manière simultanée. Mhm. ñu def ay réunions. parce que xam nga boo bëggee jógee euh, Tamba ñëw Dakar wala nga jógee. Mhm. Euh, Podor mhm. wala euh, Matam ay relaaw ñëw Dakar dafay kii ñu bëgg ko def des ci ay pôles régionaux. Mhm. yoo xam ne dañuy daje de manière simultanée ku ci nekk organisé yaa mémorandum yëglu ñu partagé ko. partagé mémorandum boobu. dinaa la ko yónnee pour nga exploiter ko. bu ñu partagé mémorandum boobu ñu xool amendement yi ñu jox mais autorités yi xam nañ ko. AMS ils sont au courant de toutes nos activités. dañ leen tànqamlu su ma la bëggee. waaw dañuy nasaxal. Mhm. waaw ngeen xeex. dañuy nasaxal. Mhm. non foofu lañ ñu jëmee nag ñoom foofu lañ ñu jëmee mais on fera face. duñ ci def coow lu bari nag. Mhm. on sera très stratégique. on est très pondéré. coow li du bari. mais dinañ faj nañu bëgg saafaraal ci kàttanu yàlla. ok ci loolu sax dañuy daal di eh, waxtaanee ci report élection locale yi mais balaa ñu ciy xuus ñu ne euh, mode d' élection dafay changé. incha allah wax ni. mel na ni atout la. ah oui sa sa ça ça un gros problème ñun ñëpp xam nañu problème bi fi amoon. Mhm. da am na benn <laughs> maa ciy waxtaan ak suma benn xarit mu may nettali. Mhm. benn xarit adjoint maire mu may nettali du ma ko cité. Mhm. mu ne ma waa ji moom kenn ak mu moom mouvement moom kenn moo ci nekk conseiller. benn nit. yëpp moom benn nit boobu moo jàll. moom mujj nekk maire. sur un collège de plus de cinquante euh, conseillers. raw gàddu bi daal dañ koo waroon soppi bu yàgg. bu yàgg parce que loolu moo fi am ñun ñëpp dund nañ ko. à la limite l'écrasante majorité des conseils municipaux ku ne dund nga ñu proposer la xaalis pour nga voteel koo xamante ne dafa dafa am minorité lay doxe ok te kenn xamu ko. malheureusement. ñun ñëpp dund nañ ko li tax gars yi décrire mais maintenant si le maire est élu au suffrage universel direct. alhamdulilah. moo gën ko moo non moo gën téeméeri junni yoon. kooku moom au point c'est mhm. ñu yokk seen mandat yi léegi euh, dàkkaat élection locale yi yéen a ngi xaar. Mhm. xaar bi yàgg na. Mhm. wala ànd nga yow ci dàq bi. non dàq bi c'était consensuel man mosuma di ànd. mais quand boo bokkee ci mbooloo. ñu am une position consensuelle. da nga leen ci accompagner léegi nag dàq bi dafa doy. dàq jëm kañ. deux mille vingt bi euh, jàpp nga ni élection war nañ war nañ ko ci mën a def. xam nga février deux mille vingt deux bi lu tax gaañe di ko daw. Mhm. parce que bugguñu ñu reporté waat les législatives. crainte boobu lañ crainte boobu lañ ci am. Mhm. mais si le président de la la république donnait des assurances à tous les sénégalais. Mhm. nee bu defee élection euh, législative février deux mille vingt deux. dina def élection. Euh, légis euh, locale deux mille février deux mille vingt deux. législative juillet. deux mille vingt deux mille vingt deux. ñu xaatim ko. tënk ko. coow lu que décembre février c'est quoi la grande la différence c'est pas énorme mais fi ne nii dañu yaakaar ne. Mhm. ni ñu dàqee. local yi local yi. Mhm. Mhm. dara dàqaat législative yi. les mêmes causes produiront les ah, mêmes effets. ah xaw ma nay sama boo ah. gisee lu ñuul da ngay daw. waaw ah, bu boobaa nag bu ñu yeggee ci présidentiel war koo dàq tamit kenn du wax. <laughs> <laughs> même ñu nangul d' accord xay xëy na léegi yéen. Euh, ci commune bi. Euh, ñu ne am na ñoo ñuy wax ñu ne Cheikh am na ambition commune Sicap commune sa commune. waaw am nga ambition pour jiite ko. mais ginnaaru Sicap sax loolu la ñuy sabee suba teel. bu ñu yeewoo yaa ngi ci projet taxawal pour euh, jël mairie bi. moom laa leen man la. Mhm. ginaaru sikaab sax moom la ñuy suba subatel <laughs> loolu leer na. Cheikh Ndiaye loolu combat foofu de. ah combat ci biir sikaab ah. mais ça a toujours été des combats. Mhm. sikaab. Mhm. ak feneen a ci yem. ak projet ban projet nga bëgg a teg ci kaw loxo ci loxo askan wi commune bu sikaab ngir ñu mën a adopter projet boobu bien vrai que le maire. Euh, mi ngi def ay jéego te yow ci équipe bi nga bokk génn taxaw samp sa nënd euh, nan la nar a demee. lenn daal leer na. Mhm. projet bi ma leen di proposer. ok ce sera différent de ce que ce qui proposé jusque la parce que principe bi ma taxaw. Mhm. mooy ne su ma waree ñëw. Mhm. di def li ñëpp di def. di def lu ñëpp daan def. jarut may ñëw. maa continuer sama liggéey bàyyi ñeneen ñëw te man sama wàllu bopp tëbuma tëb rek ak sama jubb mhm. ne damay ñëw taxaw déedéet dañu ma tànn lenn ci askan wi daf ma tànn mhm. waaye itam suma kilifa daf ma jiital suma parti mhm. daf ma jiital tànn ma muy AFP donc. kilifa gi mën nañ jàpp ni maire bi la. waaw donc. Mhm. te bu ma tëb rek ne damay ñëw pour déedéet. Mhm. dama ko teg ci lu wóor fu wóor. ak lenn ci askan wi loo xamante ne bokk ma ak ñoom parti. Mhm. te ñii bokk ci ñeneen parti. ñii bokk ci société civile bi. ñii bokk ci mouvement citoyen yi. maanaam yaa ngi waxtaan ak ñëpp ubbeeku ci ñëpp. ah oui très ouvert. parce que man dama bokk ci ñi nga xamante gestion collectivité lu mu gën a yaatu. Mhm. gën a baax parce que xalaat yi dina gën a bari. Mhm. et le meilleur pourra ressortir. ok dama bokk ci ñi nga xamante dañu gëm concertation. Mhm. dañu gëm waxtaan dañu gëm diisoo. xam nga dañ koy faral di wax. am sama benn magum taalibe moo ma mës a nettali mu ne ma. sëñ Abdoulaat yal na yàlla yokk leeram. bi mu ñëwee nekk xalifa Touba. dafa woo bokk yi. Mm-hmm. rakk yeeg cousin yeeg ñu toog mu ne leen dama bëgg su ma jumee ñëpp jum waa jaaxle. Mm-hmm. wa salaam. ah jaaxle. Mm-hmm. génn daal ku ne wax ak sa morom waaye xamuñu woon lu mu jublu ci wax ji. parce que lenn ci ñoom ñëwee sept soit pour mu leeral leen ko. daf leen dama bëgg lépp loo xamante ne maa ngi koy def. Mhm. ma diisoo ci yéen ñëpp. lañ ca tënk. Mhm. ñu jàpp ko doxal ko. bu baaxee bu waax pour ñëpp bu dee juumte la ñu xam ne ñun ñëpp a juum. Mhm. ñu ànd jubbanti ko. ok kon yaa ngi ci tànk yoon donc ci principe yooyu la ñuy dox ñun. ci valeur yooyu la ñu su suñu suñu démarche. kenn laa fay wax autorité la naam annoncé wul ni bëgg na mairie Sicap mais Cheikh Ndiaye ak euh, ministre. Zahra Iyane Thiam ci biir commune bu Sicap boobu. Mhm. ak am na un jeune Serigne Saliou. Mhm. moo war nga ko mën a xam. Mhm. ñoom itam ñu ngi affiché seen ambition surtout Serigne Saliou moom affiché na ambition am. pour euh, jël mairie bi. changer soppi xar kanam gi. xanaa su ma juumu da ko tàllal loxo mais est-ce que. Cheikh Ndiaye ak Zahra du indi complication ak statut bi mu yor ci biir commune bi. ban statut la yor ci biir commune bi. maanaam euh, en tant que ministre bi mu doon ci biir commune bi. ah d'accord voilà ci ak ba ngeen di dem outil mairie bi du dara du ci soppeeku. je pas très le sens de la question. mais maanaam tey euh, kàngam gi mu doon ci hmm. APR. waaw Zahra Iyane Thiam. waaw bu bëggee tey outil mairie bi. Hmm. alors tey euh, ndaxam dana yomb moom laa lay loolu laa la bëgg a wax. ah dana yombam du yomb nag moom kooku nekkul ci sama loxo <laughs> kooku ci. kooku ñiy fal. ginnaaw yàlla mi nga xamante ne moo yor dogal. Euh, ñi fal ñooy désidé amul looy tiit si ñoom. waa déedéet bu fekkee ne nag dañuy jóg di engagé lu mel ni di tiit moom bu ñu toog dem defe leneen rek. kooku moom. <laughs> am na am na am na solo am na solo ah, déedéet moom moom jóg naan da ngay dem di. <laughs> di tiit ak le jeune sëñ Saliou moom. Ah, waaw mais xam nga xam nga xam nga moom laa lay wax c'est-à-dire. alternance générationnelle bi. Ah, bon alternance générationnelle nous sommes de la même génération. donc euh, kon man damay bokk ci alternance boobu. Mhm. <laughs> si si nous sommes de la bu fekkee même bu ma ko magee nous sommes de la même génération. Mhm. donc euh, li ma jàpp daal mooy ne. ça ça ne fait que. Mhm. euh, enrichir mhm. le débat mmh. politique okay. à venir. Mmh. Ça ne fait qu'enrichir mhm. euh, les orientations parce que ça va parce que yooñu ñooñu nga ma si del ñëpp. Mhm. am na ñeneen ñoo xam ne. xaw ma leen am na ñoo xam ne ay ambition. te gis nga gis nga gis nga boo bëggee génne du loo. ah il faudra être très imaginatif. Okay. il faudra être très pertinent. il faudra être très convaincant. Mhm. parce que ay kàngam rek nga mos a <laughs> mais itam kenn ah. raw la. itam ah. yow monsieur Ndiaye parce que itam commune bi euh, pour euh, ràññee ko. Mhm. Cheikh Ndiaye la ñuy wax tour bi daa mel ni saf na ci commune waa Sicap bi. tur bi xam naa li muy doomu Sicap saf ci sàpp la. <laughs> kon euh, <laughs> monsieur Ndiaye kon émission bi presque ñu ngi ci cappaandaw gi. Mm-hmm. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, mbokki auditeurs yi ak mbokki askanu Sicap ñi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel ci émission bi. jërëjëf euh, Mbemba encore une fois ma lay sant ci dalal bi nga ma dalal. Mm-hmm. di ñaaxaat askanu Sénégal. Mm-hmm. à plus de responsabilité. ñu gën a tijj seen i bët. gën a tijji seen xel. ci lii defar. ci lii tabax. waaye di lancer un appel aux autorités. Mhm. bu ñu commettre les mêmes erreurs. nañu jubbanti. Mhm. de manière très très très très très conséquente. Mhm. fi xewoon. rupture de confiance boobu. dañ ko jéem a restaurer. diggante justice ak population diggante gouvernants yi ak population bi. Euh, diggante ba ci collectivités yi ñu yore. il faut que rupture de confiance dafa am fépp mhm. nañ ko jéem a liggéey li tax nga xamante ne mhm. ëllëg population bi mhm. moom daf ñuy fekk ci loxo bi ñu koy tàllal pour ñu defar réew mi ok wasalaam en tout cas ñu ngi lay jaajëfal di la gërëm di la sant bu baax a baax ci sa disponibilité donc euh, émission gox bi daanaka jeex na ju jox euh, dig daje mbokki auditeurs yi beneen dimanche ak beneen gan